لينقاد ممن باليسير تهمنا كتاب عزيز زاد وتريبة عنا لينقاد ممن باليسير تهمنا كتاب عزيز Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki talibe yi ñu ngi leen di ziar di leen balo ak di ñaan subhanahu wa taala boole ñu jéggel mu melni wa télé saw jant jatti tv fas yéene leen a andi lépp lu fi xew tey jii ñu ñëwoon fi nga xamante ni mooy seesu sénéralu Cheikh moor Diouf Diatty ñu fekk ko fi mook ak rakkam yu baax yi ñu bëgg a ànd ak ñoom ci waxtaane màggal gi kon mu mel ni ki ñuy njëkk a jox kàddu gi rek mooy Cheikh Mouhamadou Ndomba Diouf di rakk ci sëriñ bi waaye di kenn ci sëriñ bi di xaritu sëriñ bi di doomu Cheikh Abdourahman Diouf moom soxna maam Bousso Mbacke kon sëñ Modou ñoo ngi lay nuyu bu baax di wax nga wax ñu ci njariñu màggal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk mbokku jullit yi mbokku yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax di nuyoo di jiite ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Serigne Basirou di xalifa général ku lu murit di ziare bu baax tamit Serigne Modou mi nga xamante ne tey fii ñu nekk di daaram di Serigne Modou général di ziare rakk yi yëpp Serigne Sidi sëñ Baye Serigne sëñ Koso ñi fi nekk sëñ Modou Bamba ñëpp maa ngi ziare ñëpp baax a baax a baax di ziare waa Diatty TV ñëpp di télé sawu jant tamit hmm, caméraman yeeg journaliste yeeg ñëpp rek ñoo ngi di ziare bu baax a baax di leen ñaanal fañ yéen egg fépp suñu borom eggale leen fa. sëriñ Modou Kara dañ ñoo laaj si njariñu màggal tey sëriñ Touba dafa woote ak cant kaa leen santle ma sama boroom ndax lam ma defal loola nag si lañ nekk tey suñ borom dogal suba di euh, cant gi tey jii ñu fekk ñu fii di ñu si laaj dinañ si sawara wax bu baax a baax sëriñ Touba nag moom li mu woote li tax mu woote ko moo di yàlla daf ko may lu muyul kenn bi mu jugee fii si Mbacké yi dem Ndar jóge fa dem dakaar jóge fi jël géej gi eh, ñu yóbbu ko Gabon yóbbu ko maa Mayombe yóbbu ko fu nekk waaye fu ñu ko mën di yóbbu rek ngorom ak fitam ak jomam moo ko fa doon jàllale bi mu demee ba mujj yeneent bi ñëw ni ko yàlla gërëm na la man de gërëm naa la dinañ la may yiwu toll ni suufu adab mooy suuf si ñu nga moom la ñu bindee Serigne Touba ni bëgg naa lopp loolu ñun ko dinañ la may lu toll ni duusu géej gi sëñ tubaa ne bëgg naa lopp loolu si la ko yenent bi yóbboo ne ko baye ba ko ñu dem suñu borom mi nga xamante ni moo ma boole woon ak yow ñu ànd liggéey bi bi mu demee Serigne Touba la la bi mu demee si yàlla suñu borom li Serigne Touba wax suñu borom mooy nag ko may bu del si àdduna mu doon jéggalu bépp julit kon koko moo gore léegi nag bis boobee noonee la ñuy sant nii ñun nag ñu war a àndandoo ñun ñëpp di ko cant ni ko sëñ bi bëggee muy jàng xasida jàng alxuraan waaye joxe ay bernde te maandu waaw waaye nag bëgguñoo woote ñuy doxe naneen ak laneen ñëpp nañu maandu te yam ci alxuraan jàng xasida ak di bernde loolu daal lañ doon am leeral tuuti tuuti rek luñ ci doon euh, yëkkëti xam naa dañ ñoo bett sax waaye bëggoon nañu waxe naneen ndax sëriñ Touba daa fonkoon dëkk bi ndax euh, fii ñu nekk muy kër gi moom moo ko jox Serigne Mor Diouf Diatty rëddal ko boppam ba pare ba ko ñaareel kër gee sa daaru marnaan euh, noonu mos nañ ko fa fekk di ko di di gor néegi bi ko fi jibril fekkee ne ko noo bëgg suñ borom taxawee ne si la ne woon yaa malikal mulki yaa man jàllan xaw di xam jëmee loora yaa xaadi yara daa kookoo goree ñuy gor ay këram di la sonal ngay ñaan yërmande si ñoom kooku mooy Serigne Touba si Ahmadou Ba. kenn la ci sëti Cheikh Mor Diouf Cheikh Mor nag mooy ki nga xamante ni fii ñu toog moom la ko xaadimu rasoor rëddal ni ko dalal ci sama jàttija moy ki nga xamantene mo doon bay fi fi juma ji nekkon yoran fi daram kon nga xamal ñu tuti rek ci sama am joju di Cheikh Mor Diouf jetti ka nga xamantene mo non dina jeegi jéggi wi jéggi waale ko sirat wa sawu jant gépp Maysa sosé ak euh, mam bint moom moo jóge woon saw jant fekk Serigne Touba yeesu si moom euh, doon ko liggéeyal ba taxoon sëñ bi tegoon ko fu mu teguloon kenn fu ko tegoon tegu fa woon kenn ndaxte euh, fii xamante moo di jumaa ji ay moo nekkoon daaraam fii di armel di ay toolam loolu rek doy na ndam loo nga xamante ni képp ku nekkoon Serigne Touba ndam loola amoo ko ba ko ñaareel tamit Serigne Touba defal na ko loo nga xamante ni addiyee jëm fa doon indi menn moom rek moo ko fee indi eh, muy mboolum noor ak ay néegi ñax yoo xamante ni jamono yi kenn mënu koo takk moom rek moo ko mën a takk moom tamit Serigne Touba wàcce na ko ñetti yoon Serigne Mor Diouf Diatty tamit maanaam moom eh, Serigne Touba da ko defaloon loo nga xamante ni moom dafa seex Serigne Touba jëlub taawam seexalaat ko yaakaar naa loolu menn moom rek moo ko am. seex sab taw sëñ tubaa seexalaat ko seex yi li ñu bari bari ku nekk ke mennum yow rek lañ seexal moom seexal nañ ko ñett yoon sëñ tubaa boole seexalaatu taawam jox ko maam Thierno maam Thierno eh, mu féeteeg maam Thierno Ibra Faati muy Serigne Darou Seynabou Serigne Mor ju jat daal lañ ci xam moo di kookoo di borom sawu jant moom la ko Serigne Touba dénk mooy borom sawu jant te ëllëg ku fa lakk sax sëñ tubaa koo xam ne ko ëllëg ku fa lakk dalaa neex te yaakaar naa tamit ni ku ku réerawul ak moom doo fa lakk ndax ba muy jéggi eh, dexu xumaag ga dañu jéggi naa dex gi jéggi waaleel eh, siraat waa sawu jant gépp kon kookaay di Serigne Mor ju jàtti wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Maodo